bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi yàlla euh, julli ci yonanteem salallaahu alayhi wa sant suñu ñaari waaju sant Cheikh Ahmed Bamba Khadi Moustapha comme ni koy defee euh, ci diiru weeru koor gépp tey la fukki fan ak juróom euh, fii ci kër Cheikh Mamadou Abdoulaye Fall Ndar xalifa bi Serigne Cheikh Bintou Fall ñaanal ko yàlla suñu moroom yàggal ko fi loolu ànd ku wér ni ko Serigne Mamadou Abdoulaye Fall Ndar jàmbaaja daan defee Euh, bu ñëwee ba ci fukki fan juróom mboolem ñi mu bokk sëñ Ablaye Fall Ndar ñoom sëñ Talla Ablaye sëñ Fall Ablaye ak sëñ maam Cheikh Ablaye euh, dañ fi ñëw jébbal si waaye xam nga diir bi bi fi sëriñ Modou jógeeg léegi sëriñ Cheikh Bidou ak mboolem ñu bokk Cheikh Modou Ablaye Fall Ndar li commencé euh, sëñ Abdou ba si sëñ maam Cheikh ñoom ñëpp dañuy indi seen i pour fukki fan yeeg juróom euh, yeesalaat seen njëbbal ak seen taalibe euh, fii ci kër sëriñ euh, Mamadou Abdoulaye Fall Ndar xalifa bi sëñ Cheikh Bintou du ko ñaanal yàgg ak wér xam ne sëñ Sana ni ko defee ci li nga xam mooy waañ bi préparé yi nga xam ne moom lañ préparé waañ weeg yooyu waaye préparé yi nga xam ne sëriñ Taale ña ngi ci kanam di ngeen ko dégg ak sëriñ Saliou sëriñ Mamadou Abdoulaye Fall Ndar moom soxna maam Maray Mbacke mu sëñ Abdou Lahad moom tamit waxtaan wu am solo wala ambiance bu am solo bi nga xam ne def moom la def kon xam naa ci kanam tuuti sëriñ bi dina génn bu génne nag waxtaan ak euh, taalibe yi soñu leen ci li nga xam ne moom lañ ñëpp moom lañ bokk mu ak taalibe mu maam Cheikh Ibrahima Fall fi nga xam ne Euh, moom la jële ndigal yi ak fi ndigal yi yegg si yëpp Serigne Cheikh Bintou Fall euh, am nañ yéene nag euh, muy indi seeg ñun kon sëñ ci kanam tuuti ñu dem ci biir rek ci sëñ Cheikh ak i bu ko defee rek ndogu yeeg ak soles ndogu yi incha allah dinañ ko mën a am fii ci Waarwi TV sëñ Sana mu nekk ci Waarwi caméra bi ci technique bi Serigne. Bassirou Sylla mu baax mi kon nag di leen wax ci kanam incha allah. nuyu nañ leen ziar leen ak site internet Waarwi TV di situ Cheikh Ahmad Bamba Khadimou Moustapha comme ni nga koy baaxoo di defee ci ndogoy maam Cheikh Ibrahima fa Lamp bi mu dina di jóge ci kër maam Cheikh ba Fall Lamp di jëm ci Serigne Touba Khadim Rasoul waaye noonu la ñuy nuyoo bu baax a baax Serigne Touba Serigne Mountakha di ko ñaanal suñu borom guddal fanam loolu wér a cëram. waaye noonu lañ koy nuyoo Baye Fall ba maam Cheikh Baye Fall muy Serigne Cheikh jëmb ñu ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér xam nga bu di gis maa yi xam ni ak penc mi xam ni ci penc mu am solo ci yoon wi muy pencum Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar yàlla suñ borom sayal ñu ko bu baax a baax yokki leeram taaf suñ ci barkeem njaboot gi suñ borom teg ci loxo comme nam ko daan defee ba fi sëñ Ablaye nekkee ba fi eh, sëñ Ablaye jógee tamit moo koy def ba ci Serigne Cheikh bint bi di ko ñaanal suñ borom. yàggal ko fi lool eh, ànd ku wér ziare mboolem eh, taalibe yi xarit yi ak am jàmm yi comme eh, ni ko sëriñ Modou Abdoulaye Fall daan defee rek noonu la ko sëriñ Cheikh Bintou Fall di defee xam naa dina leer si kanam ñu toog ak suñu baay suñu xarit Baye Talla Niang ñu ngi koy jaar bu baax di ko ndokkeel ndokkeel baax a baax waa kër gi ku si mel ne sëriñ Aziz ak sëriñ Laat ak sëriñ Cheikh Abdou buñ tuddee ñooñu rek dañuy tudd mbooleem njaboot Cheikh Modou Abdoulaye Fall Ndar gépp kon euh, Baye Talla ñu ngi lay ziar ak Waarwi TV ak ci ndog yi nga xam ne euh, sëñ Modou daan ko def ba ci Serigne Cheikh Bintou mi di ko ñaanal yàgg ak euh, mu koy taxawee ba tey nii tey la fukki fan juróom ñu war a dajal li nga xam ne mooy àddi yi ak li nga xam ne moo moo jëm ci wàllu ndog yi. sono Awa Diop Touba ñu ngi lay nuyu lu bari di nuyu Waarwi Waarwi TV di nuyu si si altaan mi xam ne moom nga àndal ak kilifa yi nga xam moo ngeen fa bàyyi. Euh, euh, sëñ Cheikh Bintou boppam mu ngi siyaare xalifa euh, daal di bàyyi xalifa daal di murit si Mountakha ak njabootam membre njabootam membre Touba Mbacké yëpp di siyaare sëriñ Cheikh Jimb Fall sëriñam di xalifa maam Cheikh ak njabootam maam Cheikh Fall gépp di siyaare nag si Mortala Fall xalifaab Cheikh Abdoulaye Fall Ndar ak kilifaam yi nga xam ne doon buntu kër maam Cheikh Fall yëpp nga xam ne ku nekk da ngay togg ay ndogu dikk yót maam maam borom Tuubaa Mbàkke ci ndigal maam Cheikh nee na mi ngi leen di seere ñoom ñëpp ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal kër kër maam Cheikh Fall yëpp di seere seex yi xam ne moom la maam Cheikh Fall seexal ak ñi mu gërëm ñëpp euh, dëpp nag nuye boobu nag neen nag moo njaboot si moom laay fal gépp ñoo ko bokk góor jigéen ñi mag ñi ndaw ñi di leen di leen di leen di leen seeral ne ñi nga xam ne day di seeral kilifam yooyu nga xam ne ñoom la bokkal si mu Abdoulaye Fall day moom sant leen gërëm leen bu baax a baax di xam ne ñu yóbbu ñoo ñoo ñëpp ñoo ko bokk. Ah, ah, li ngay laaj nag ci affaire ndog yi yow yow soxna ji aw ju Touba yow Ndar Fall dara da li li li ci ëmp xaw xawta bari ndax Cheikh Mourou Abdoulaye Fall dafa nekkoon si wàjjur wér bëgg la lool def la def la doomam. fu mu ne fekk ko fa kon dog yi dañ ko daa ànd ko yóbbu kër si di Maxtaar ba ci kër Alaaji Baara fu nekk ànd ko yóbbu ko fa noonee nag si mu Abdoulaye Fall doon ko defee si si bin du ko yokk du ko yokk ndax dab yi mi ngi egg foo ne fii daaw fu yegg te man foofee maa ngi fa yeggalee kon liggéey bi doo ko yokk rawatina tey jii sax doon fukk fan ak juróom nga xam ne dañ ko daal siyaare Cheikh Mourou Abdoulaye Ndar tey jii itam lañ koy siyaare Cheikh Mourou Abdoulaye Ndar que tey jii siyaare boobu ñu daa siyaare Cheikh Abdoulaye lañ koy siyaare sëñ si Buntu Fall daa mel ne sax loola yow ah, lépp lenn la xam sax moo tax sax xam naa xam naa sax nga dàkk bis tey jii ah, ñëw fi. Mm-hmm. Euh, jërëjëf euh, Baye Talla bu bëggoon a xam cosaani ndogu yi nga tuuti ci ci ci kër sëñ Abdoulaye Fall Ndar euh, ba si sëñ Modou Abdoulaye waaw euh, cosaan fekkee ne euh, suñ mu fekkee ne Sëñ Abdou Ndar da ci nga tàmbalee ah Sëñ Abdou Ndar mi ngi sofee ci Sëñ Moutalla Fall ndax xam nga Sëñ Moutalla Fall mu nekkoon ñaari ñaareelu xalifa maam Cheikh ah, ba ba nga xamee ne wàcc na la si la Sëñ Abdou Ndar doon xalifaab maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina kon daa mel ne kon foofa la sofee moom waaye nag ba mu sofee itam maanaam ku ci nekk da nga yokk ndax. maam Cheikh ba ba mu fi jógee Cheikh Moustapha Fall moo fa moo fi ne woon di ko xam nga jamono nag day soppe ko ah, togg na fi leen doogee ceeb di ko yóbbu waaye léegi si soppiku na ba leneen la ñuy togg di yóbbu ci jamono Cheikh ah, ma maanaam tufi yàggut ndax ah, tufi si jamono si Cheikh Jëmm Fall la xewee waaw jamono mag ñi nee na jamono Cheikh Moustapha Fall mag ñi nee nañu daan nañ daan nañ togg ay cere dikk wala ak ndawal waaye waaye itam bu yooyu jamono nag. Ah, loo loolu tam kilifa dëgg moo kom moo ko mën a am waaw daanaka daa toog nañ fi toog nañ fi ay cere si Cheikh Moussa Fall toog nañ fi ay cere jamono Cheikh Moussa Fall jamono Cheikh Moutala Fall waaye booba jamono jooju bokk bokk rek jamono ji mujj gi ñuy def ceeb yoo xam ne yi tuutaat fa kàll la kon xam nga kon tu fa yàggut jamono sëñ sa jëm Fall la kon nag jamono jamono dox ba bag foofu waaw léegi far sëñ sa sax foofu maanaam daanakay eh, sopp ko far ay ganaar Euh, lépp doon lépp doon loolu waaw euh, moo tax kon ndog yi kon day dox rek euh, xamuñ sax fan lay àkk ji ah. waaw ndax mag ñi nee nañu maam Cheikh Rafal moo wax ni lu jamoon na lëj lëj lëj doom si doom xam li yor jamono daane daane jamono lum mu lëj lëj sama doom dana am lu mu yore doomi Sëñ Bàmba kon loolu kon xamuñ kon fu mu yem ndax loolu wax Cheikh Ibra te itam ci te itam ñu ci am lu ñuy gis ndax jamono saabu la jë ba lëj ba lëj suñu tubaab nekk su waxee rek loolu lépp teg ci aw yoon kon loolee kon ñu ngi ko tàmbalee gis yàlla yàgg loolu. Euh, jërëjëf jërëjëf euh, suñu baay baay Talla Niang waaye jërëjëf euh, mbokk yi di topp Waarwi TV waaye nag di fàttali lu baax nag. Baye Fall gépp heure bi daaw ñoo fi toog moom di ñaan suñ borom subhaanahu wa taala yokki bu baax nag yaa tax xéewalam di ñaanal Cheikh Modou Ablaye suñu baay bu baax boobu wala dëgg yàlla duñ ko fàtte e, mu ngi ñoo toog ñeen fukki guddi te tëdduñu gis gis ko di waxtaan ak moom loolu moom yàlla may nañu ko ci moom kon nag ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yokki bu baax nag yaa tax tam ni ko waxee rek am naa fi cër soxna Daba Fall mais may gis e, sama cër la e, yàlla dogal maa ko loolu lépp nag yaatal gi ni ma ni wax ko sëñ taal rek ma ma ne ko euh, bunt euh, maanaam bunt bi euh, sëñ Mourou Ablaye moo ma ko moo ma ko ubbil ma mën a jaar si mboolem buntu kër yi Baye yëpp te nag fu ma mën dem ci Baye Fall gi yarub sëñ Mourou Ablaye Fall laa fa yóbbu maanaam formation sëñ Mourou Ablaye Fall laa fa yóbbu loolu moom yàlla ko dogal si moom kon nag ñi ñaanal ak njabootam suñu borom yàggal leen fi loolu nag ànd yooyu yaru tamit di la ñaanal suñu boroom yàggal la fi nga nga yàgg taxaw Euh, sëriñ Cheikh Bintu ak i rakkam euh, ndax gis nañ taxawaay bu baax a baax wax dëgg yàlla gis nañ ko bu baax a baax gis nañ ko si ñun waaye nag gis nañ ko si si mboolem taalibe yi nga xam ñoo topp euh, sëriñ Cheikh Bintu di leen sant bu baax di leen gërëm xam naa ci kanam tuuti ñu amaat yeneen i reportage wala yeneen i ambiance fii ci kër Cheikh Modou Abdoulaye Fall la ñuy séentoo te loolu yi lañ bëgg ñu def ko kon na kumte gii di ñëw sàkku nañu képp koo xamee ni yor nga cin jàppal ni dañ ci dolli beneen cin ku joxoon benn boisson di nga joxe ñaar loolu daal mooy ndigal li sëriñ bee ko wax dama koy jottali rek kon nag ñu ñaan ñu yegg ceeg jàmm te sama borom dolli ñu sutura dolli ñu xéewal man loo ñu ko ba ñu koy def ay déwéni déwén te ñaanal ko moom nag mu yàgg fi lool ak ay rakkam ak njabootu sëñ Modou Abdoulaye Fall gi yëpp ak taalibe yëpp ñu yàgg fi te jërëjëf auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyu beeg siyaar bi Serigne Cheikh Bintou Fall mii suñ bunt ci maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal Cheikh Mountakha suñ borom yàggal ko fi loolu te wéral ko noonu lañ koy ñaanale Serigne Cheikh jëmbu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko euh, di leeral tuuti rek ci liggéey bi nga xam ne moo waral ndaje mii ñu daje muy daayira xidmatu maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Abdoulahi Fall Ndar moo ko sosoon ci teewaayam joxe woon couleur du déguisement bleu noir yi ñu koy sol ñaan loon ci it nag ne dinaa ci def tawféex bu baax def ci xéwal ba mu yaatu ndigal li mi ngi ko joxe woon fukki fan ak juróom ca njaareem daa mel ne nag ndigal lam joxe woon am na barke ndax kër gi léegi foo romb ñëpp a ngi sol bu loolu noir waaye ñu ngi leen di a ñaan nag ñu koy gën a sol bu baax ngir jëmmi Cheikh Mamadou Abdoulahi Fall loolu Baye Bada wax ci daayira gasoil bi des na ci leeral waaye nag mbir lu nekk la ko tax a jóg loolu ngay njëkkee kon ndaje mi daayira xidmatu maam Cheikh Ibrahima Fall bu Cheikh Mouhamadou Abdoulahi Fall Ndar moo ko sabab ñuy soññaat yi nag mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo bokk sëriñ bi suñu waxee dañoo bokk sëriñ bi nag ñi sukk yees lu ci sëriñ Cheikh Bintou Fall ñooy tax ñuy wax ndax ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi ci kër gi te nekk ci rakki sëriñ bi ñu ngi góorgóorlu ci daayira gasoil bi daayira boobu moo taxaw taxawaay bu mel ne daayira fédération beneen daayira bi ci des kenn du jóge ci kër sëriñam di ñëw di ñu ko tegal ñun ñi jébbalu ci sëriñ bi ñoo ciy teg loolu dafa mat a leeral daayira bi nga xam ne mooy daayira gaasuwaal bi ñooñu ñi nga xam ne njabootu sëriñ bi lañ taalibe Cheikh Abdoulaye taalibe Sëñ Jili taalibe Mangunda taalibe Sëñ Abdou Aziz ñoom ñëpp ñu ngi ci biir waaye daayira bi nga xam ne nag mooy daayira xidma bi nga xam ne sëriñ Cheikh Fall mii moo ne ci bunt bi ñu ñi sukk yi yees ci moom ñoo koy doxal kon amut nag ku nekk Daaru Marnaan mbaa ku nekk jannatu mbaa ku nekk Baay Faal ga képp koo xam ne ci sëriñ bi nga yeeslu ci liggéey bi nga bokk leeral nañ ko nag ay yoon yoon it waxuñu ne kumte yi ngay jox sëriñ bi bokkut ak daayira na leer tamit man mii joxe naa kumte keneen keneen jox na seen kumte waaye taxawaayu daayira daa bokkut ak taxawaayu kumte kumte yi ak sëriñ bi ko seq daayira ku bokk ci kër gi ci nga bokk dafa mat a leeral kon li nga xam ne maanaam ñi nga xam ne jotoon nañoo jaayante seen addiya teew mi ngi tolloon ci cinq cent soixante mille ñu xalaatoon ci jëndoon ci wenn nag lool nag liggéey bi moo soppeeku ndax daan jënd soble ak pombiteer waaye nag sant yàlla liggéey bi mooy dox bu baax ba la daayira bi daan def nga xam ne fukki fan juróom juróomi mujj yi daayira bee ko daan togg waaye jamono jamono yi la woon bi jamono ndox ba mu fi ba mu xaw a kawee nii nag mën naa am diis na ci daayira bi waaye mën naa dox ba daayira bi dellaatam newoon ndax képp kuy liggéey yokk ngay ñaan yàlla léegi nag li fi daje woon mi ngi tolloon ci cinq cent soixante mille ñu jëndoon ci benn nag affaire yi ñu ci waroon def yu bàyyi faale waroon añ ak yooyu génne ci trois cent dix mille frais bi nekk trois cent dix euh, li fi des reste deux cent cinquante mille moo nekk ci enveloppe bii nu yor war koo jébbal sëriñ bi xeeb nañ ko xeebuñu ko ndax xeeb nañ ko ci ni mbooloom sëriñ bi toll waaye xeebuñu ko ci ñi ñi jaayante fi seen doole toll ñi nga xam ne jaayante nañ ak fi seen doole toll ñooñu xeebuñu ko ci waaye xeeb nañ ko ci fi mbooloom sëriñ bi toll kon nag li leen di ñaanaat nga xam ne dañ koy ñaan suñuy baay suñuy yaay suñuy soxna ak suñuy rak ñu yokkaat pas-pas bi gën a waat ndax sëriñ bi kat liggéey bi fi mu nekk nii jaayante rek jaayante rek moo ko fi indi fu jëm ëllëg it jaayante ko fa yóbbu ndax ku ne xam na ne am-am bi des na man-man bi des na waaye nag jaayante moo yóbbu yoon wi fii mu nekk kon nag ñu ngi soññaat mbokki taalibe yi yëpp ñu gën a jaayantewaat ak sëriñ bi gën a jaayantewaat ci liggéey bi gën a jaayantewaat ci daayira bi bu baax a baax a baax a baax ndax daayira kat bi ko suñ euh, suñ Mourou Moustapha Fall di sas suñ Mourou Moustapha Mbacké suñ Cheikh koy sos dafa waxoon ne li daayira bi di def su su dul daayira mënoo leen ko te loolu mooy li wér tey jii suñu xëyoon xëy ba nga dajale juróom fukki junni ci kër gi ku nekk di nga ko laaj ku nekk mere la firnde la ci daayira gasoil bii oto bi ngeen daan jël di ko yóbbu jumaa ji 3000 ngeen ko daan fay juróom-benn téeméer te da ngeen xeex léegi année bi dañuy financé million te duñu xeex kon loolu daayira ko man li gën a am solo ci daayira boobu nag mooy bi nga xamante ne maanaam koor gi mi ngi jub si sëriñ bi génn dañ ko woo xamal ko ne ko dañoo bëgg a wuti matt jolof suñu amee kayitu autorisation bi koy jëli danañ ca dem bi mu ñëwee mu mayuñ ci ndigal boole ñu ko suñu ëppoo mu bindal ñu ko. ñu fay camion bi cent mille dem chargé camion bi ñëw wàcce ko moo tax ku ne xam ne ne jafe-jafe yi doon am daaw ci wuti mat fu ne ñu ñaan fa bant ren ñu loolu lépp nag programme la ñun nag ay ndaw lan ñoo ngi ci waaye nag dañ leen di ñaan tamit yéen ngi xam ne ay mag ngeen nekk suñu ginnaaw ngeen di ñu ci dooleel ci xalaat ci lépp rek ndax liggéey bi fas neen ko yéene jaayante nañu ak sëriñ bi te wallaahi duñu dëpp ndax olof Njaay moo ne mbër ka la jàggiroo te ñun Cheikh Modou Moustapha Fall ji li moo ñu jàggiroo ak dayo boo mën dem suñu mulaay rek noo man demee suñu wulaay rek wallaahi wax naa ko daaw waxaat naa ko ren te du te dara du ci wàññeeku billaahi wallaahi wataalaahi barke Cheikh Mourou Blay kurut Cheikh Mourou Blay Fall ndar jàggi woonu ñun ki nu jàggi daal suñu wulaay la kii ko fi nekkal ñu sos ci moom du ñu dëpp du ñu daay du ñu yokkat billaahi la si kon nag képp koo xam ne bokk nga ci liggéey bi bay ba nga fas ko yéene bu baax faale am noo ngi xaar bu baax ci ñaanal suñ borom guddal soo fan wéral say cër di tuub na kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci sa kanam di ko yëkkati ci kanamu kilifa yii ñuy sant it bu baax it ku mel ne Cheikh Abdou Aziz Fall mii ndax nit moom boo koy sëñ Blaat def na du ma sant ku ma defu dara Cheikh Abdou Aziz nag liggéeyu gasoil boobu baay ba di wax moom ak Cheikh Abdou Lahat Fall mii ak sëñ Talla Niang mi bari ci ñoo xam ne liggéey bi ñoom ñoo tax mu ñëw fii li ko waral mooy am na ñoo xam ne liggéey doo tax du xaalis bu ñuy yëkkati di ko joxe ni dalay wax kàddu goo xam ne goo googu day des ci sa bopp bi di tourner foo toll ci mbooloo mi kàddu gi day beesaat loolu mooy soññee te Cheikh Abdou Aziz mi ci nekkuk suñu laay dañoo soñu soñu mel nañu fàllu ma ne ko fàll mu ne moom mbooloo mi su ngeen toogee ci basan gi doon ñaar bu leen ko xeeb doxal leen su ngeen toogoo ci basan gi doon téeméerit nekk su ngeen wootee nit ñi ñëw doxal leen su ngeen wootee nit ñi ñëwuñu doxal leen muy am solo Cheikh Abdoulaye bi ñu demee danañu fàllu ma ne ko fàll mu ne bu leen xëccoo jiitu mbooloo su ngeen xëccoo jiitu day yàqu daama ngi nii du ma bàyyi ma fenn Modou Laye Sylla gars yi bari dañoo daje kër suñu baax ñu ne ma yaa jiite mbooloo ma ne neen jiitewu ñu nekk fa 4 heures ba 5 heures ma ne ma de ñu ne ma yaa ñu doy ci mbooloo ma ne leen ñu ne ñu léegi da ñuy jiital ba weeru koor gi jeex ñu jox keneen noonu lañ ma naxe ba ma dugg waaye nag sant nañ ci sëriñ bi sant ci yàlla bu baax ndax loo xam ne ñun ñoo ko waroon a def ñun lépp lu sëriñ bi soxla ñun jàpp nañ ne ñoo ko waroon a def keneen ku ko def kon ñun nga ko defal kon noo ngi sant ñooñu nga xam ne ñooñu doon daggi ba saa suñ toogee ci ki doon fa ñu ñaar doom suñu xel dem ci ñoom saa suñ toogee ci basangi bari suñu xel dem ci ñoon di sant sëriñ bi di ko ñaanal bu baax di ñaanal mbooloo yëpp di sant Baye Tall di sant ñëpp rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ baa ngi leen sant sëriñ bi mu ngi ñu gërëm baax a baax sëriñ baa ngi nuyu sëriñ baa ngi sant eh, di ci di ci jiital ay kilifaam muy si Muntaxa Mbàkke Xaadimu Rasuul saa borom yàggal ko ci wéral ko ak jëwatam maam borom Tuubaa Mbàkke gépp di ci teg sëriñam sëriñ Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Baol Mouridina ak njaboot ak maam Cheikh Fall gépp di ci teg Cheikh Mortala Fall xalifaab Cheikh Abdoulaye Fall Ndar sëriñ nuyu ak rakkam yëpp te ñaanal wajjum yooyu nag saaroom yàgg na fi lool te wéral leen ñi bokkal maam ak ñi bokkal maam Cheikh Fall sëñ baa ngi nuyu njaboot ak Cheikh Modou Ablaye Fall gépp nga xam ne moo ak ñoom ñoo bokk Cheikh Modou Ablaye Fall góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bayul kenn sëñ baa ngi leen nuyu leen gërëm leen sant bu baax gis na gis na seen taxawaay sëñ bi mi ngi ñaan euh, euh, mébét mi ngeen mébét ci Cheikh Modou Ablaye Fall mi nga xam ne mooy seen waajur di seen la ku ci nekk fa mu nekk Cheikh Ibrahima Fall fekk ko fa eh, jàppale ko ba leen bëgg a liggéeyal bi dikk jaar Cheikh Bintu mii sëñ Cheikh Bintu mii sàmbaram jàpp na ba mu am la koy njortam sëñ bi nee na mi ngi ñaan di rajee Cheikh Ibrahima Fall kat bu leen am mel ndog bu leen dara fakkatal nanga ngeen egg ngeen jëm suñ bi nee na guddeeg bëccëg xelam ak xolam saa su nekk mi ngi ci yéen du leen fàtte gudd leen fàtte du leen bëccëg loolu suñ bi beneen na ko ñi nga xam ne ñoo bokk Cheikh Abdoulaye Fall Ndar ci na ci gannaawam muy góor yi muy jigéen ñi mag ñi muy ndaw ñi sëñ bi it mi ngi xam ne ne soxla yi nga xam ne dañu nekkoon ay murit ne ci gannaaw sëñ bi nekk fi ak ñoom ba sëñ bi dem àjjana bàyyi leen fi sëñ bi nee na saa su nekk mi ngi bàyyi mi ngi leen di bàyyi xel mi ngi leen di xel sëñ baa ngi leen di masawu te xam ne jamono ci boppam yëf yee yaatu jamono ji xate nekkoon ku ci nekk jëm moom saa su nekk dañuy dikk ci yéen waaye nag xolam ak xelam du ci yéen seen saa. sëñ bi nee na saa su nekk mi ngi leen sëñ bi nee na yi nga xam ne dañoo àndoon ak ñoon di liggéeyam maam Cheikh Fall bii di liggéeyam Cheikh Abdoulaye Ndar di liggéey Sëñ Abdoulaye di liggéey moom mii te saa borom woo leen ku ci nekk ku ku ku nekk fii rek xam na ñooña xam na seen tur waaye day metti jar seen tur sëñ bi wax sëñ bi kat nee na. ñoom ñoo ñee mag leen di ñaanal sabaram yokk leen ay leer ñu gis Cheikh Abdoulaye Fall Ndar gis maam Cheikh Rafal gis si Abdoulaye Fall Ndar ci ñi fi bàyyi ñëpp itam sa borom teg ci ñoom loxo booy boo seen xel dal ci neen suñ bi nee na seen xolam ak xelam ak yu bëtam di ci yéen li ci des nag suñ bi nee na ñu ne murid yii lii ngeen jëf ak seen jotaay bii ak seen wax di rafet jii jikkaloon ko tey nee na Cheikh Modou Abdoulaye Fall woon muy fukk fan juróom yi nga xam ne mu di ay ndogu mu di dayira ndax suñ bi nee na eh, gannaaw si sakkoor nee na la Cheikh Modou Abdoulaye Fall togg ay ndogu ci ndigalal Cheikh Abdoulaye Mbacké sëñ bi joxe ndigal waa Tuubaa gii fukk fan juróom ñu ne ñu mobiliser wu di fekk sukk njaareem in seen addiya boole ko tudd yàlla in seen ab añ comme ni ngeen def nii yéen dayoo daayira bi su ma mën a dikk njaari am sim du leen jox ab añ yéen in seen ab añ comme ni ngeen defee nii sim bi nee loola ci kanamam la woon fàttuwu ci dara ci lépp leer na ko te booba ba léegi bàyyiwu leen ko yii dañ koy jëf kon sëñ bi nee na li nga xam ne moom ngeen bëgg xam na ko suñ bi neen suñ bi neen daal li gën a gàtt mooy suñ bi soo ko defalee li mu bëgg suñ bi defalee li nga bëgg te suñ bi neen dafa ngeen li nga xam ne mën a bëgg ndax bëgg gi mooy suñ bi neen dañoo jël suñu jëmm dikk jox ko jël suñu alal dikk jox ko sukk ci kanamam di déglu ndigal suñ bi nag nee nee na murit noonu lay def te ñoo ngi ci nee na nag li suñu ba da wax saa su nekk mi ngi koy dégg sunub taalibe nañu ko téyel téye googu su ma nee ñi ngi ci waaye nee nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax kat façon nangu nangu sax nangu rek képp ko nangu su ma nee da nga da nga noppal sa muy nit muy mala ak lu mën a doon ku nangu rek da nga noppal sa bopp noppal sa kilifa su ma nee kon mi ngi ñuy ñaanal. bu baax lu ngeen man ren soo liggéey ngeen mën lool lépp loolee tey nee na nañ tey nee na suñu xel dal ndax kat nee na suñ liñ man ñoo ngi ci liñ mënut ñu ngi koy jéem suñ bi nag nee na kuy def kuy def te àddina rek rek rek tax nanga def la nga man wax la nga xam waaye waaye suñ bi neen boo def yàlla tax dafa la nga man def loo mënut suñ bi la ndax kat ku def loo man képp kenn du la dimbale te maa ngi dee gaa yi di ñaan eh, gaa yi si ka naan dimbal nu yërëm nu ndimbal nag ba booy ma ci da nga man képp kenn du la dimbale boo dee liggéeyal yàlla danga def loo man di def loo mënut bala ngaa sonn suñu dikk ngatnu la dimbale la loolu yi suñu waxoon ni nañ ko ci tàbbal mi ngi gërëm ñëpp di ñaan ñëpp leetar yi leet leetar yi addi yi itam sëñ bi nee na ñu ngi ko joxe nañ fàttali leetab addiya nag bokkut ak liggéey ba sëñ bi wootee leetab addiya bokkut ak ndog yu ñuy joxe leetab addiya bokkut ñuy joxe leetab addiya bokkut ak siyaare sëñ bi xaddiya mbiram boppam la ndax kat ñi xam ne dañ julee ko woor dañuy dañuy jox seen addiya kon lii ñuy def nii di di togg ndog yi mbiram boppam la tabaski yi mbiram boppam la màggal gi mbiram boppam ak siyaar la waaye addiye nag moom mbiram boppam moo xam ne mii moom mooy dimbali murid yi fi ñu nekk ak fa jëm mooy tax su màqama ci sama borom kawe moo tax nit ñi bëggnu moo tax sox bàmmeel du la lekk doo am fenn ci xabru doo am fenn ci bàmmeel sa sa alal da koy yokk sa alal da koy barkeel loolu lépp addiya moo koy joxe waaw loolu lépp addiya moo ko joxe suñ bane nag moom saa bu ñu waxee dana am lu waaye nag loolu mu la moom so suñ bane nee na soxla yi ne ci waañ wi ne leen gërëm sant leen bu baax a baax waaye neen nag boo fàtte mukk soxna cekk faal moom a ko déey kon nag soxna cekk moom doo doo ko fàtte suñ bane nee na soxna yi yéen ñëpp ñëpp ñëpp ku ne ci waañ wi ak fu mën a nekk rek suñ bay nee na ngërëm li ak cant li ak na ci yéen waaw suñ bada loolu moo ko wax li ci des nag Fall Ndiaga ah xanaa rek nag Fall nga wax nag ñu barkeel nag say kàddu ndax kat say kàddu dana tooyal sama xol. maam Saliou Fall mën nga wax ñu ñaanu Baye Ablaye Fall di samedi. bi di Cheikh gaaw bi ñëw la samedi nee na mi ngi ñëpp nag si kërkat yi yéen ñëpp gis ngeen suñu Cheikh Lappé sol sol de gisement bii. yéen ñëpp yéen a ko gis sikkar su nekk am na fa waaye mu waxte lam boppam nii sikkar su Ndar Fall si fa ma yóbbu ak fa ma ak ni may def mënu ko xamal nit wax na leen ko waat leen na jege si leen ma fii te sikkar bërk démb sikkar da ngeen war sikkar si mbadaa ngi lii daa gën ba si ñoon daa def amal ngeen ma barab sikkar amal ngeen ma barab sikkar ndax dégg ngeen sikkar si tey kii nga dégg kii nga dégg ci kii nga dégg fekkee nag Seexul Abdoulaye di leen tànn si kër sii ngeen di ko def ba suñ si Muxtaar teewlu ko wax suñ sax coro ba mu leeral na ko di fa ñu ñëw ba kër sëñ Basiiru su mën ki xam ne moo lañu booleel wax wax ngeen di ko dégg ba lu mel nii yéen yéen ñëpp ngeen gis mu sol ko kon loolee dañ ko war a fonk daa bëgg te su ngeen demee rek Fall sa si kàddu ndax ko say kàddu fa danañ suuxat say kàddu danañu yeesal say kàddu danañu dimbale say danañu soññ loolu moom faal dañ ko yelwaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julli di tedd yi fi teew yëpp ak sama mbokki taalibe yi fi teew yëpp ak ñu amoon yére teew te teewuñu ñëpp maa ngi leen di nuyu ci weeru tedd wi muy weeru koor te mu sabab daje bi di siyaare Cheikh Amadou Muntaxa moom mi nga xam ne moo fi nekkal xaadim rasul ak mboolem njabootu Serigne Touba yépp di siyaare Serigne seex Jëmb Fall xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall ak mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ak mbooleem njabootu maam Cheikh gépp di ko ñaanal sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ngi gën di fàttali suñu pasteef ak sunu jaayante ci moom suñu diggante ak maam Cheikh Ibrahima Fall di siyaare Cheikh Mor Cheikh Mor Talla Fall xalifatu Cheikh Ndar waxoon naa ko fi barki démb rekk fii. di ko siyaare bu baax di ko ñaanal suñu borom dolli ko ay xéewal ak tawféex di siyaare njabootu Cheikh Modou Abdoulaye Fall gépp ak mboolem njabootu Cheikh Abdoulaye Fall Ndar gi muy góor di jigéen di siyaare bu baax soxna maam Mariama Mbacke bintu Cheikh Abdoulahat Mbacke moom xam ne laa bokkoon ci bokk ci laxasaayu sëriñ bi ak mbooleem ñi mu seqaloon liggéey bi ñëpp sunu wéyjur soxna jeejaay mi nga xam ne mooy njiitul daara ji ak mboolem ku mu seqaloon liggéey bi di leen sant bu baax di sant nag sama mbokki bi yi nga xam ne dañoo seq liggéey bi man ma ma mu mel ni damaa jiite liggéey bi waaye damaa ñoom dañoo ànd liggéey bi rek ndax lii di daayira bii di xidmatu maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ dafa dafa ma ko bëgg a moomale waaye daayira bi moom mukk daayira bi man duma ko nungoo moom te moom mukk dégg naa ko mu leeral wax daayira gaasuwaal bi ne daayira boobu fédération la maanaam moom la xaw a taxawee ndax waa kër sëñ Lahat Fall dina si joxe waa kër sëñ Jili Kéré ak ñeneen ko noonu noonu bindoo rek njaboot si Modou lay gépp waaye loolu nag ci daayira bii la gën a war ci daayira bii kenn matu maam Seeraayam Fall ci la gën a war ndax li tax ma wax loolu mooy daayira bii du daayira bu Cheikh Bintu Fall daayira bu Cheikh Mouhamadou Abdoulaye Fall la moo ko bind ci loxoom ci biggu boppam tudde ko xidmatul maam Cheikh Ibrahima Fall tànnal leen yére yi ngeen di sol fa njaareen te kër seen laa fa ndarga kon daayira bii képp koo xam ne yaakaar nga ne ëllëg sag pay ci maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Mourou Ablaye la ko suñ borom di jaarale daayira bii sa loxo war na cee nekk war nga bu ñu wootee war ngaa wuy si bu ñu laajee war ngaa joxe ndax daayira bi saa saa saa su fi ñëwee ci liggéeyam sëñ Modou Ablaye bii rek lay ci lay dellu kon loolu sëñ Fallou daa am yéene rek dama ko moomele waaye man seen mbokkum taalibe rek laa moo xam ne dama ànd ak yéen liggéey bi mu ànd liggéey bi kon sëñ Fallou daayira bi nag gën a soññee nu def ko ni def daayira gasoil bi ni ñu ko yaatale ñu yaatale ko liggéey bii waaw waaye mën a nekk loolu dama ci soññ sama bopp di ci soññ sama rakki bopp yi ma bokkal Cheikh Mor Abdoulaye di ko tàmbale ci Abdou Lahad Fall ba ci sëñ euh, Modou Mbenda ma nga xam ne moo mooy caat ma kenn ku ci nekk sëñ njaboot na bokk ci daayira bi lu néew néew nga jël juróom-ñaari nit bind leen ci daayira bi ndax loolu du sabab daayira daayira suñu Moodu lay la kon loolu maag ñoom ñëpp ñoo ci bokk yem rek ñoo bokk yem àtte képp kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ci addiye ji ngeen nga xam ne weeru koor bu nekk sëriñ bi da leen ko rëddaloon ngeen koy doxalee ni ko ni ko sëriñ bi bëggee woon daan ko fekk njaareem di ko jébbal liggéey bi ah, ren ji ngeen doxale ko noonu nii ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm ci gis nan li ngeen joxe euh, fas nañ ko yéene tàbbal ci liggéey bii mu ngi ci loxo sëñ nangu naa ko teg ko ci loxo sëñ Abdou Aziz Fall mi boole ci ak gàtt bi ngeen indi taxawal ko ñu fas kee dugal ci liggéey bi ñu ngi sant nag bu baax di leen ñaanal ci yàlla sunu borom yàlla na ngeen ko gën a man lépp lu ngeen ci yéene ak lu ngeen si jëf ñu ngi ñaan ci sëriñ bi sunu borom ci barkab sunu borom ngeen mën ko lu ko ëpp bu dewee déwénee ak jàmm ñu ñaan yàlla suñu borom maynu nu bokk teewee ko ay déwén yu bari ci barkeb Serigne Touba barkeb Maam Serigne Fall ak barkeb weeru koor kàddu yi nag xam naa du mën yaatu ci fànn woowu noonu rek lay tëddee bi ci desit am nañu yéene euh, ndax liggéeyal sëriñ bi moom amul wàcc amul wàcc amul dama tàmbali lii li eggagul du ma tàmbali leneen ndax ñi julli ñun ñun julli jullikat yi ay waxtu yëpp lay julli julli suba julli julli julli fajar julli julli tisbaar takkusaan timis gee naafi la waaw da dégg sax ñuy wax naan ci sunuy alal ak sunu ñaq ma bëggoon nag waxtaane woon naa ko ak sëñ Abdou dinaa ko gën a waxtaane ak ak gi bu jàllee kër sëriñ Modou Abdoulaye Fall gee ca Touba Ndar Fall ci Jolof nga xam ne dëkk boobee sëriñ Modou Abdoulaye moo moo moo ko sancoon yaakaar naa su ma juumul 76 la ko sanc dama liggéeyal maam Cheikh Ibra ñu bari ci njaboot gi am na si ñooñ ba nekkee tu tànk lañu fa nekk ba tey jii ay boromi kër lañu am na ci ñooñu sax am nañu ay sët kon dëkk boobee ab dëkk la ñun ñëpp nag ma bëggoon ñun ñépp nu xam dëkk boobee nu xam ne am na lu ñu fa sëriñ bi dencal sëñ Modou Ablaye am na lu ñu fa fàggul am na lu ñu fa dencal loo xam ne mënuñu sa mënuñu sa jot mukk lu dul ndare ñun ñun ñoo dem jëlal ko suñ bopp lañu ba sëriñ bi fàggul dencal ñu ko fa ci baatin ak ci saaxir mënuñ sa jot mukk ndara ju dul ñun ñoo dem jëli ko suñ bopp waaye day moom day daana wax naan ay see ay seedeng ci mbooloo mi ñoo xam ne daañu dégg mu ko tax naan sama dëkk bii Touba Ndar Fall Jolof mooy si mooy seen Amérique mooy seen France daan wax naan dëkk bii day bu dul Tuubaa Mbàkke ak Kawlax gi xam nañ ne li may wax firnde ju wér la am na ñooñ yeew nañ leen dama yàlla baal ci baat bi ñu takk takk leen ci oto yóbbu leen ba ci dëkk ba Tuubaa Ndar Fall wàcce leen suñ ko defee ab diir suñ borom delloo na leen seen sago ak ak yeneen ak yeneen kon nag ab sàmm nag la muy sàmm du ko jiitu la muy sàmm du ko jiital kenn mësul gis kuy sàmm xanaa sàmm bu bu dem ba bay jofal si ci kër gi mooy gàddu aw teg ko ca baat ba jiitu xare topp ja waaye li ñu gën a miin ci xaada day mooy kii sàmm day jiital jur gi topp ci ginnaaw jur gi te it kiy dénkaane ku ne sa kanam taxut sa ginnaaw rekk tax ndénkaane sa kanam taxut xoolal ma lii ak téyal ma lii maanaam jotaayam jotaayam boobee taxut waaye ginnaawam moo tax muy xoollu di téyalu moo bëggoon ñun ñëpp nag nu yebe xel ñu yebe xel dëkk boobee di Touba Ndar Fall Jolof am na ay naalu yu fa tàmbali woon ci ndigal lañ ko tàmbalee muy muy sasadoo boobu bi nga xam ne sëriñ bi dafa dafa ab forage ci yi président Senghor moo ko mayoon forage ba ci ndigalu si Abdou Lahad Mbacké ba mu demee forage ba amuloon amuloon satado waaye amoon na am mànd moo xam ne jur gi ak ak ña jëfandikoo ndox mi dinañ ko mën a jëfandikoo waaye taxutoon na ndox mi mën a yaatu ba àgg fu ñu ko bëgg àggee loolu it sëriñ bi naaloon na ko suñ borom toog liggéey boo xam ne moom tàmbali na ko ndax Baye Galas nag mi nga xam ne moom mooy moo fa nekk fi mu ne euh, lu ci bari ci jur gi daan duy si foofu ci seen seen bande yi lu ci bari léegi satado bi moo leen duyal ci diir bu gàtt te am na ay teewa yu ñu dugal ci dëkk bi yoo xam ne boo tijjee ndox mi wala ngaan loolu nag liggéey la boo xam ne bu bu buñ ko sumbee suñ jëm bopp taxul ndax liggéey la boo xam ne nun mbooloo mi rek ak njaboot gi noo tax ñu sumb ko duna fas yéene ku am ab tiwo bu mën a yaatal ndox mi ca biir dëkk ba ci biir tool ya nga def ko euh, képp koo xam ne mën na caa jàpp ci beneen anam mu def ko loolu bokk na ca naal yooyu nga xam ne dañ ko naaloon naalal sëriñ bi ci dëkk boobee muy Tuubaa Ndar Fall Jolof la ca dolli kit mooy këram googee nga xam ne fa la njëkkoon a wàcc ba muy sacc dëkk ba ñu fas ko yéene miire àndandoo ak njaboot gi ñu miire ko am na nag ay mool yoo xam ne sax moom moo ko fa móoloon boppam waaye buñ ci eggee wax naa si Abdou Lahad mu seet bis bi buñ waree jàmm bis bu rafet ci tàmbali nu jàpp bis daje fa ñun ñëpp mbaa ñu fa mën daje mbaa ñu yàlla dogal ñu war faa teew ñu teew fa ku mënul tamit sa sa sa jëf ak sa ak sa ak ak sa yéene teew waaye lañu gën a mooy ñu xam ko ànd liggéey bi liggéey ko muy muy muy foofee ci Touba Ndar Fall loolu lañ leen doon dolli lii Baye Baye moo taal ña wax mooy kuy defal kuy defal kuy defal kuy def ngir àdduna dangay ngay def la nga man rek képp yem ca loolu mooy li wér waaye kuy defal sa borom nag ne da nga def loo man ak loo munul waxtu bu boo demee nag baa ngi ci li nga mënul nag suñ borom ñëw mottali la ko waaw kon nanu nanu ndax yàgg mas jombut yaakaar naa ne mas ngeen dégg ñuy nettali maam Cheikh Ibrahima Fall ci pastéefam aw say bu mu doon taxanal fii si Ahmad Bamba fii fi Touba nee na bi mu daggee say wi ba teg ko mu juróom-ñeent fukki jën ak juróom-ñeent ci nañ ko waxe nee na mu ruux say wi bëgg koo yenu say wi say wi lànk attanu ko ci saxir nee na mu bàyyi fa say wa moom maam Cheikh Ibra tekki tekki takki takkaay ya dem taxanaat ñettam ñettam teg ko ca bu fekkoon na bërigo la mu dolli si ñetti bërigo muy ñeenti bërigo nee na mu arrière taxaw jàkkaarloo ak say wi di wax ak moom ni koy wax ak doomu aadama ne ko yow say wii de dafa mel nag maa xamul wala xamoo sëñ bàmba sëñ bàmba sama sang bi ma lay utloo soo ma xamoon soo xamoon sëñ bàmba day di nga di nga jël ma di nga jóg ma yóbbu la wa ilaa su ma la mënta yóbbu la ma njëkk a mas ci sama wujur soxna Seynou bu Njaay dina génn fii ñu fekk ma fi wala sama ru root fii nañu xam ne lii ñuy def liggéey bi ñuy liggéey muy muy koor yi muy ndog yi ak yeneen liggéey yu ni mel nañu xam ne nun ci la sunu lépp nekk sunu paju aaju ci la nekk sunu texe tey ëllëg ci la nekk te tey nag ñu xam ne nun dañu am yaqin ci sëriñ bi waaw yaqin gu wér lañu am ci sëriñ bi ñu xam ne maam Cheikh Ibra sëriñ Touba maam Cheikh Ibra lim nu dig ak lim dig ak ñun lu man la yaqin lañ ci am ci sëriñ bi bu yaqin gu wér waaw nu gën a fonk ndogu yii ak yeneen yu ni mel lu si def lu nekk ñi ngeen koy defee fii ci waa kaamil bi ñoom sëñ Abdou Aziz ak sëñ seexu naa ñi mu ko àndal nga xam ne bu ñu xëyee nañ jàng fi kaamil alxuraan bala ñoo taal ndogo yi loolu ak mbaax mënu ko weesu waaw kon nag na ngeen koy jàppe noonu rek dañ koy doxale noonu rek kumte yi nañu waajal ko bu baax a baax a baax a baax am na ñu ma tudd wax naa la suñ bada dolli dool ay cin ñi yor ay cinit di kilifa it keneen ku ma dolli cinit nga dolli cin waa ndax lépp rek ci liggéey bi la jëm ñi ngi sant ñëpp di di gërëm ñëpp waxtu bi moo xat te ndog yaa ngi nii noppi na sëriñ Talla boo demee nga joxal ñu ko sëriñ bi na ko liggéey baa ngi nii nun ak njaboot gi ñëpp rek waxtu wu nekk rek ñu ci ñu ngi ci ronam amuñu bëgg suñu bëgg daal mooy xanaa ngërëmam waaye bu dee leen bu dee leen ci àdduna moom bëgguñ bëgguñ fàgguñu si leen nañu bàyyi ñu fàggul suñu bopp ci àdduna ñun àllaaxira rek lañ lañ àndee ak moom waaw suñ àdduna moom moom lañ ko dénk waaye ba bëgguñ ko cee sonal suñ àdduna jiñ ko dénk jiñ dénk sëriñ bi bëgguñ ko cee sonal nañ ko téyal nag ba luñ ci yóotu mu yomb si waaw nañ ko téyal na nga ko wax sëñ ne ko nañu ko téyal nañu ko téyal ci loxoom ba lu ba luñ ci song mu mu mu yomb si mu yombuñu si waaw waaye bëgguñ ko cee sonal ci leen hmm. àllaaxira ji moom lañ ko dénk foofee lañ foofee lañ yaakaar ndimbalam ëllëg te xam nañ ne mooy maam Cheikh Ibra te xam nañ ne mën na ko waaw xam nañ ne lu man la te xam nañ ne lu maam Cheikh Ibra Fall liggéey la ci diggam diggam ak boromam ba suñ borom fayee ko loola. te xëyam yëpp suñ Bàmba nangu na ko amul amul amul amul jënd jëfam ji suñ Tuubaa nangu moom maam Cheikh Ibra ndax suñ Tuubaa ak mu jëm ci njaareem daa da koo woolu ne ko Ibrahima mu ne ko Fall mu ne ko mu ne ko. bis ni ki tey sama borom wàcc na ma ci lépp na ko julli juróom mi sax li muy baax a baax sama borom wàcc na ma ci daan ne ko ñam yu ma li ma war a mosu ci àdduna ci ci aw ñam suñu borom wax na ne ci yow mii sa kër la war di bàyyi ko waaw daan ne ko suñ borom wàcce na ko ci lépp ne ko ne ko saw ñam moom laa war di jëfandikoo sam ndox moom laa war di naan ba keroog ma koy wuy ji kon Serigne Touba gërëm lu mu gërëm maam Cheikh Ibra benn taxawaayam bu maam Cheikh attan na mbooloo mépp ñu doon laat Pastef bi rek waaw li ngeen war li leen war lépp yéen a ngi ci waaw li leen war lépp yéen a ngi ci bu sëñ bi wootee ñëw ngeen bu laajee joxe ngeen ku ci amul sax jooy waaw loolu nag ak bëgg mënu ko weesu waaw waaye dangay gis nit di yëkkati dundu këram joxe ko ba noppi teg ci ay jooyam waaw kon ak bëgg foofu la mën a yem kon li war lépp yéen a ngi ci ñu leen di sant bu baax nag di leen jaajëfal di ñaanal la Cheikh Modou Abdoulaye suñu borom doole ay leeram dool doole taw feexam waaw doole doole doole doole jàmmam fa mu nekk waaw suñu borom gën a taxaw njabootam góor ak jigéen biir ak biti waaw am na am na ndigal lu lu muy sëñ Modou Mamoun ak sëñ Abdou ak sëñ Abdou ak sëñ Soyebu tàmbali mu mu jëm fii ci biir kër gi loolu na si ñëpp jàpp am na ndigal sëñ Cheikh Fall mi tàmbali it loolu it ci biir kër gi la jëm loolu it na na na na si ñëpp jàpp waaw jërë ngeen jëf yàlla nañ ko teewee na ngeen déwén yàlla nañ yàlla nungul jaay Seydina sallallahu alayhi wa sallam Touba Cheikh Ibrahima Bye.